xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. xoolal ana wa ñaamuuma. xoolal ma lay jaay ci koor gi. waaye sëñ Mbàkke ak Seexu yi ñoo koy jaayal waaye lu koy yàgg a tax tax ay ci daanañu. Macky Sall si si màggee. yow yow dama faale yow yow yow dama faale. yow yow da ngaa soof léegi yow da ngaa soof. Euh, man dama lay wax lu neex kese lu neex laa la wax. lu neex xaw ma xaw ma laa wax xaw ma. kooku comme bàyyi naa ko. waaw waaw waaw waaw waaw waxal waxal waxal léegi waxal waxal. bàyyi naa ko. waxal seexu. yow ma wax dama laa bëgg wax wañaa moom day jaay tàndarma si koor gi kese. tàndarma tàndarma lay jaay si koor waxal. bu bu bu saf suukar. tàndarma bu saf suukar kay. ci fe fe xoolal fa laa ko doon fee fee fee si mooy si engrais si boobu koñ. xoolal mu la table bu mag. tàndama yu bëri comme camion ba si asamaan. te dañuy dem sàcc dañuy dem sàcc dañuy dem sàcc dañuy sàcc tàndama dañuy sàcc dañuy sàcc. yow bu ñu sàccee moom bu ñu jàppee kon dañuy. jàpp yow yow moom ñoo ñoo ko dàq daw ñoo ko dàq daw damaa fàtte rikoo ba ko dàq daw. wóor wóor wóor loolu wóor. si xam nga léegi damaa tàppe xam nga waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa la xale du tàppe waxoon naa la. yow yow may dañuy may waaye suñu demee di ko sàcc xam nga xale du sàcc baaxul kon du ñu jàppee kon dañuy. dugg waaw kon kon kon kon kon kaa ñu wax mu jox ñu léegi ñu dimbali ko ñu jaayal ko. ñu ñu ñu jaay ko tàndam ñu ñu ne ko ñu ne ko wañaan ñun ñun ñii. waaw dañuy jaay ay tàndam yu bëri ñu ne ko suñu papa sax day day jaay tàndam. day jaay tàndam après bu ñu joxee tàndam ñu nax ko. nax ko dégg daa daa dem waaye. kii waaw wér ko boo si naxee ni kon yàlla da lay jàpp. ma nga se se se se yow yow waxu yàlla kese ngay wax yow yow moomin nga dégg nga yow moomin nga dégg nga. léegi lañ ko war a wax jox ñu ñor tàndarma ñu jaay après ñu indi la dégg nga dañ laa bëgg a dimbali dégg nga. ñu ñoo ko mu xam nga sa xarit la. waaw waxal ak moom rek ñu jox ko ñu wax moo ko mu jox la benn mu jox ma benn ñu dem ñu wër ñu jaay ko ah, na ñu def Cheikh ñu def loolu dégg nga ji moom du ma ji tey moom du ma ji. Cheikh dañuy teg c'est kaañu xuloo c'est kaañu xuloo ko kon kaañu xuloo. kaañu xuloo ma jiitu ma de. jiitu ma de bu ma tudd nekkatuma sa rakk dégg nga. nekkatuma sa rakk laa da siitaane ma tey yow li ñu def lu ñu def rek nga ne nga ne damay jiitu waaye dinaa jiitu waaye waaye beneen yoon kon kon du ma jiitu su suñu demaat du ma jiitu. yaay sama yaay sama mag dégg nga. yaay sama mag dégg nga. yéen li ngay rek nen yow man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. gi Seexu Taaboy. Eh, Seexu Sow. yaa ngi ci jàmm. yaa eh, daa neex dërët yaa da ngaa neex dërët. ah sa biir ay si si kii kii ñun maa moom. dañuy jaay tànnama nekk de. waaw parce que pire mooy yàlla kii am man tànnal ma du bëri bi fii yëpp. parce que fële ba fële ba fële. suñu adduna bi yëpp. Ah ah suñu suñu suñu suñu papa moo ko daan jaay suñu ah papa. ñun ñun xala xala yow yow nga jox ni kii kii. jaay weccet waaw ah. daa bañ daa bañ daa bañ. ndax dangaa dangaa bañ ndeket. xoolal xaalis xaalis. seen ndeket xoolal dem nii xoolal xoolal xoolal. ajo banaan ajo tànnal tànnal. Hmm. jël xaalis. maa kii kii. xoolal kii benn man benn ñu dem ñu jaay jiwoon ca xoolal waaw waaw waaw waaw xaalis bu bari ay milliards kay. waaye hmm. joxo joxo gi am am am ma waaw waaw nee na nee na boo xam da ngaa dof nee nga dofuma nee nga déedéet. dofuma de dofuma. dof sa papa moo dof sa papa. waaw kii kii nii lay jaar man nii lay jaar ñu dem jaay bu ñëwee jox la xoolal benn ñaata la ñaata la. deux cent ñaar ñaar. c'est c'est xam nga yow xam nga yow xam nga yow da ngaa def kii benn 500 la benn 500 la woon. 200. ñaari fukki dërëm 100 francs. 100 francs. xaaral xaaral munoo munoo wax bu leer. 100 francs 100 francs. ah nee na 100 francs lay jël. kii kii day dem jaay. xam nga waaw man man lu ma neex lay jaayee. téeméer téeméer. waaw waaw téeméer téeméer jaay nañu leen jaay man nii laay jaay nii man man ànd maa yor ku nekk day dem nga jaay. Ah! Seex Seex damay man dina Seex même Binta maa ngi tey naaj bi tàng na de. waaw. du man. Kaay loolu si naaj bi. dama jaay tàndarma tàndarma. bébé Cheikh foo jëlee tàndarma. ta tàndarma dama xaar man man man maa ko jënd woon fële fële fële. takkee ñëw di di di jaay. waaw kay. bébé Cheikh tàndarma bi ñu ko jëndee yow ak kan maa ko jënd maa ko moom maa ko jënd dama koy jaayaat kese. cent franc benn cent franc wóolu ma la de. maa ko moom kay billaahi maa ko moom. ana sa xarit boo doon àndal. si Mbacke daa dem jaayi dem na jaay bosam bosam moom jaay na bosam man man sama bos moom dama koy jaay. waaye lebal ma ko. ma lebal ko. fay. man. jël jël jël li sa baaxul li sa li ah, yaa ma ko victoire bi maa ko may. ah merci beaucoup dégg nga. waaw merci dégg nga. waaw. dégg yaa ko allah. lebal naa ko. kaa ko bañ a muum te kaa dama kaa lebal dama kaa lebal waaye su ma ko a am est-ce du ma dàq. am na lu fi xew man danaa ko wax.